discours procureur wala conférence de point ou point de presse naka nga ko jàngatee de façon globale. waaw euh, sur la forme euh, nañ nangu ne yoon moom moo ko may euh, dans le cadre des procédures comme ça mu communiquer. Mmh. article 10 code de procédure pénale euh, may na ko mu wax ak sénégalais surtout ci dossiers yi nga xamante ne day juri polémique. Euh, di jur ay incompréhension donc euh, mu génn wax ak sénégalais ci li nga xamante ne moom loolu la jàpp ni loolu moom mooy euh, les orientations de son enquête. Mm-hmm. alors sur le fond aussi foog ñu comprendre le rôle du procureur dans le cadre de d'un procès pénal. Mm-hmm. procureur dafa far. il est parti au procès pénal mm-hmm. donc par boobu pété boobu noonu donc li muy wax moom day indi que des éléments à charge mais ñu xam ne procureur Euh, aussi bien euh, l'avocat de la société aussi bien euh, le parquet donc ministère public du moom mooy atte mhm. du moom mooy atte donc moom dafa far ci procès pénal bi ki nga xamante ne mooy atte balaa ñoo yegg ci moom sax dinañ yeggaat ci yeneen juge yoo xamante ne du ñu euh, faruñu fii faruñu fee muy juge d'instruction kuy enquêter à charge et à décharge donc la machine judiciaire nekk à sa porte parce que c'est le maître de l'opportunité des poursuites donc euh, mais euh, ça ne veut pas pour autant dire que ni lépp lu mu wax noonu la parce que moom. Hmm. péeteem moom dafa leer. ok mu nekk maître des poursuites tey également ci déclaration bi euh, dégg nañu ko mu ne wàllum téléphone bi ñu doon évoqué démb loolu mu nekk la woon la. mais ce n'est pas c' est un élément déclencheur parce moom la ñu mujjee sax ci par rapport ak <laughs> chef d' mais est ce l' élément déclencheur c' une infraction bu ñu concevoir pour Ousmane Sonko oui ou pas. Mhm. parce que euh, Ousmane Sonko un voleur loolu moom tout le monde a ri sous cap. Mhm. franchement parce que vol d' après l' article 364 euh, code de code pénal moom mooy la soustraction frauduleuse de la chose d' autrui. alors d'après les explications moom la communiqué du procureur aussi bien euh, les explications de euh, Ousmane Sonko. Mhm. kooku da ko doon filmer donc euh, filmer nit à son insu wala sa son consentement loolu yoon da koy tere. Mhm. du la protection des données personnelles bi ñu érigé en loi ne bépp donnée bu à caractère personnel nit ki dañ ko koo protégel alors au vu de ce respect euh, de cette protection de données à caractère personnel. Mhm. am na sañ-sañu euh, image fu mu nekk mu ne delloo leen ma sama image. mais est-ce que une personnalité comme Ousmane Sonko aussi war na mën a bañ loolu ñu jël image am à son insu. non euh, xam nga tey buy woote conférence de presse. Mhm. loolu c'est un loolu consentement la. bu nekkee ci espace public bi loolu joxe na consentement waaye muy génn di dem di julli ji là c'est un cadre privé. Mm c' est un cadre privé munoo cee filmer ni te d' ci looloo tax ñu protéger les données à caractère personnel. ok parce que euh, ce pas du du du du lu public bu doon loolu la bu ku mu neex ñëw sa euh, kër. parce que Bamba nit ku public la rek mu dugg sa biir nekk photo euh, wala filmer mhm. ce n'est pas ça parce que fu filmer photo loolu nit ki foog nga recevoir son consentement mhm. et que Ousmane Sonko n'a manifestement pas consenti mhm. à ce que ñu filmer ko donc kon am na sañ-sañ ñu ne tijjil ma supprimer sama image okay. la personne a refusé je pense que c'est ça loolu moom moo nekk l'élément déclencheur comme ni ko procureur waxee mm. euh, mais est-ce que réaction bu Ousmane waroon na ko am maanaam le fait mu dem jël këf téléphone bi dafa ko téléphone bi yóbbu ko. selon peut-être yenn ci ay. xibaar yi moom moom d'après li ma liir. dafa dafa jël téléphone bi. nekkoon na nekkoon na déverrouillé. Mhm. na déverrouillé ce qu'elle a de faire. donc euh, après daf ko këf daf ko nangam li wérte mooy infraction moom pour ñu ne la infraction am na. Mhm. foog ñett yi daje. un élément légal un élément matériel mais aussi un élément intentionnel. Mhm. Ousmane Sonko dafa jëloon intention sàcc téléphone. sincèrement quoi. Mhm. Bamba sàcc. Mhm. donc de salafiste à terroriste rebelle maintenant Ousmane Sonko agresseur la. ok agresseur quoi. Mhm. siif yëfu jàmbur daw. quand loolu tamit. Euh, ok am na lu ma jaaxal aussi ci wàllu yoon parce que man euh, <laughs> li ma fekkee ci histoire politique du Sénégal jël nit ki jàpp ko yóbbu ko directement caavu tribunal loolu aussi ça explique quoi. oui non xanaa parce que caavu mu procureur nga fay la jël. procureur. bon maintenant euh, bu ñu la jàppee régime garde à vue mën nga dem commissariat wala euh, gendarmerie. Mhm. mais ñoo ñu c'est pour t'acheminer à la cave parce que mettre la l'opportunité de poursuite gisagoo ko. Mhm. donc kon c'est plus ou moins normal parce que boo jaaree euh, commissaria wala kii pour ñu yóbbu la CAF la donc ñu yóbbu la directement CAF et je pense que c'était euh, la brigade des affaires générales moom moo chargé woon de l'enquête. Mhm. kon lan moo ci euh, li nga xam ne moo di taxawaayu ku mel ni commissaire Sankaré bu nekk. Euh, justement c'est ça mon problème. dans cette affaire police mooy enquêté wala gendarmerie. Sankaré je pense c'est la. c'est la police. oui sûreté urbaine. oui brigade des affaires générales c'est la gendarmerie. mais c' est a une confusion. man daal euh, bon mais comme que procureur moom moom mooy mettre de l' opportunité de poursuite euh, joxe na infraction yi nga xamante ne moom la ne moom lay toppee Ousmane Sonko. Mhm. Euh, on peut s'en prendre à ce qu'il dit ñu mën nañ jàpp ci li mu li mu waxagum mais quel que soit Alpha moom nee na avant muy communiqué que ni recevoir na l' de sa hiérarchie. Mhm. hiérarchie yoom kan la. ça remonte jusqu'au président de la république. Mm-hmm. le ministre de la justice après président de la république. moom hiérarchie am moom. mën na yóbbu ba ci président de la république. mais euh, ce don li ma li ma jaaxal euh, mooy après bu ñu paree ci ay appel à l'insurrection ay yeneen euh, délits ou crimes crimes ce sont des crimes. Mm-hmm. yooyu noonu yëpp mais avant tout sax dañ ne lu lu mu yàgg def la deux mille vingt et mm-hmm. nga bàyyi ba à six mois des élections nga soog a déclencher poursuite bi c'est politiquement. ok mën na mën na mën na jur yi ok dem aussi bu mbir mi amee ñëpp jàpp ne dans l' affaire Adji Sarr mais procureur tey nee na loolu ça n' a rien à voir lii beneen dossier la. non je ne suis pas d' ci point boobu noonu. parce que déggoon na démb sax nga ne yow peut-être euh, contumace bi dañ koy dafay dafay anéantir. waaw euh, Barkeba également je l' ai écouté je pensais les mêmes propos mais maintenant le procureur en tant que tel moom nee na loolu a mooy contumace chaque jour ma rappelé définition bi mais même bu leen euh, kiiwul nañ dem Google. ñu bind contumace ku ñu àtte gisuñu ko ku daw wala nga. waaw léegi kii da ku daw ku da kii ku daw la ku ñu gisul. Ousmane kon ñoom gisuñu ko si le contumace continue quoi kon ñoom gisuñu ko Bamba. Mhm. nañ utiliser suñu xel dem xool définition lan mooy contumace buñ ne la lii la mooy ki nga xamante ne kenn gisu ko waa léegi moom mii nekk seen loxo kenn gisu ko kon ba léegi ba léegi ñoom ñu ngi wër Ousmane Sonko. loolu loolu loolu loolu lañ bëgg a wax ba léegi ñu ngi koy wër mhm. kon lu kon lu procureur wax euh, mën nga jàpp ne aussi c'est non d'accord ma ci d'accord ma ci euh, perception boobu parce que ki ñuy wër Ousmane Sonko fi mu toll nii wëruñu ko mu ngi ci seen loxo Ousmane Sonko mu ngi seen loxo même si bu amul benn euh, corrélation et cetera non xam nga contumace bi dañ ne s'il vient à être kon condamnation bu ñu ko defoon nul la mais il vient il vient d'être arrêté wala il n'est pas arrêté mais ci beneen pàcc la certainement quel que soit alpha non c'est c'est la personne moo nekk en état de contumace nit ki la waaw nit ki kay nee nañ la euh, boo ko jàppee quelque soit ci affaire boo ko mënti jàppee mu ngi ci sa loxo seen nekk tout un contumax. ok un contumax mooy koo xamante ne xamoo fa mu nekk. Mm-hmm. Salif Sadio actuellement wala César Atoute Badiane actuellement c' est un contumax. Mm-hmm. kenn xamul fu mu nekk justice bi mënu koo téye loolu mooy contumax. mais koo xamante ne mi ngi nii yaa ngi koy gis. même avant ñu koy jàpp sax man nee naa Contimax bi moom gën a yéem ci àdduna maa ngi la ko doon wax fii buy passé mm-hmm. Contimax buy live mm-hmm. Contimax buy organiser ay conférence de presse Contimax buy def ay émission loolu kon depuis le début de son état de Contimax mm-hmm. man nee naa leen lii du Contimax ku ko weddi na dem définir ji lan mooy Contimax xool ok euh, démb ci euh, communiqué bu procureur da ci sentir que ne peut-être ñëwaat na ci dam bi anam bu mu fa demee ne euh, mais aussi est-ce que koo xam ne nekkul en tenue am na droit waaw loolu loolu loolu loolu laa la wax léegi nii. waaw c'est-à-dire euh, dañ ne dafa paan. waaw loolu ce qui est et très bizarre Bamba. dawal ba site kër góor gi. ñëw mhm. ba buntu kër Ousmane Sonko war fa paan quoi bon c'est pas grave question technique xëy na moo demee noonu. ok mais euh, léegi nga ñëw ba foofu paan lan moo war a doon sa réflexe woo mécanicien dépanner waaye yow ko paan ba pare di filmer waat. Mhm. sa oto dafa paal yaa ngi doon dem si sa yoon sa oto paal xanaa woowoo mécanicien bu la dépanné. Mm-hmm. ngay taxaw foofu di jël ay vidéo loolu loolu loolu kéemtaan la de te loolu lañ wax. Mm-hmm. waaw mais d'accord oto bi oto civil la ce n'est pas oto du oto mi euh, je suppose que la dame était en civil waaw mais donc il n' elle n'était pas dans le cadre de ses Euh, dans dans dans le cadre de ses activités professionnelles. te c'est pas la première fois parce que à Ziguinchor je pense gisoon na li mel euh, garde corps Ousmane Sonko yi mos nañu am jafe-jafe ci ci wàllu woowu. waaw mais ki nga xamante ne moom yorul oto euh, gendarmerie solul tenue gendarmerie peut-être elle ne s'est pas présentée avec une carte. bon jékki-jékki di filmer nit nii rek. Mhm. c'est très normal. Okay. réflexe de personne nga ne ko jox ma sama yëf. Mhm. loolu moom. vraiment je ne pense pas que ni euh, parce que infraction moom mooy fi firmer nit à son insu. léegi ki ñëw na la bàyyi infraction bi. kooku lañ tëj quoi. ok l'auteur de l' infraction est maintenant. ok leneen lit mooy li xew nii est-ce que c'était pas préparé parce que récemment euh, ci conférence bu presse bu gouvernement bi keroog bi Amadou Ba bi entamé il a commencé par propos mooy ñu ngi ubbi benn information judiciaire même je pense que le procureur jotoon lancé nañ c'est pas contre x et cetera mais finalement est-ce que nekku ne lii bi ko préparé yàgg na. en tout cas gis naa euh, le fameux faux Anita Diop. Mhm. moom moo defar vidéo bi nee na moom moo ko posté ci page mu ne moom moo dimbale procureur ci video bi mu defar. vous vous rendez compte Bamba. Mm -hmm. Anita Diop mooy jox des éléments de preuve au mhm. ah, de bu dee loolu moom am na moom. wax dëgg yàlla réew mi nag nu ngi bëgg a waar moom moo ko bind ci page am mu ne moom moom moo aidé le procureur ci confection vidéo montage boobu noonu d'accord euh, bon mën nañ ne Euh, ça a été préparé parce que boo déggee même président jour bi muy euh, euh, wax ne moom du doon candidat à la nation beaucoup de euh, y a un tout un tout un discours qui a précédé cette déclaration là mm-hmm. boobu nit ñi bàyyiwuñ ci xel bu baax waaye c'était un discours buy rappeler naan euh, décision de justice yi dinañ veiller à son application kenn du seetaan dëkk bi ñu koy nangam on va défendre la république ainsi de suite ainsi de suite euh, voilà mais euh, moom it à un certain moment donné sous sous certains prétextes il avait demandé de déloger Wade mm-hmm. on s'en rend yooyu ñu ngi koy fàttaliku n'est-ce pas mm-hmm. président Wade a fait des discours aussi incendiaires aussi à l'encontre de son challenger le président Diouf mm-hmm. ça veut dire que ni euh, am na ci yenn discours yoo xamante ne c'est une normalité ci adversité politique donc euh, c'est de bonne guerre comme on dit sur le plan politique donc à six mois des élections mhm. nga mmh. déclenché toute une machine euh, machine judiciaire contre euh, le principal challenger du régime je pense que effectivement xel tey na ci lu bëree bëri c'est mm. clair. Mm. Euh, est-ce que aussi euh, tey quand comme ni ñu koy waxee maanaam le temps de la justice du du temps wu peut-être yow du temps yu man est-ce que ci loolu parce que procureur. suñu temps la war temps la war a doon parce que la justice.